Yéli Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay madame maa ngi lay fay Euh, Yéli Ndiaye nga nekk membre du regroupement des anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal euh, ñu gis ni njiitu réew Sénégal dafa euh, leen a jox ay indemnisation yoo xam ne mi ngi jàpp deux millions jàpp mi ngi commencé deux millions jàpp cinq millions tàmbale nañ mbir mi mu concerné deux mille deux cent trente huit militaires invalides nga bokkoon ci commission ad hoc bi ngir indemnisation bi am est-ce que mën nga ñu expliquer naka lay demee exactement. waaw merci madame ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ndax lii initiative président la république le président Macky moo joxe woon xool dafa xoolal ni gars yi chaque fois ñu ngi ci tali bi ils sont dans les rues de Dakar ñu situation de précarité yi ñuy dund métti na lool lool lool xalaat ne ñii il faut mu jéem a xool nan la jéem a améliorer seen situation de vie sociale mu jël initiative waxtaan ak le ministère des forces armées jox ko instruction. mu taxawal ministre des forces armées taxawul commission ad hoc mi euh, waa commission ad hoc boobu nag ñun membre lañ ci woon ak quelques ma autorités quelques cadres du ministère des forces armées ministère du budget ministère du logement ministère de la fonction publique donc euh, ñoom ñëpp a ci woon di doon liggéey ci dossier yi ba ma pare jàmm salaam depuis février d' accord léegi euh, euh, indemnisation bi deux la jàpp cinq millions naka lay demee pour ñuy jox ñi deux trois quatre ba ba cinq millions si lan lañ ko tënk exactement. waaw li ko tënk mooy que degré de blessure yi bokkul ñii c' est des amputés ñii ñi ah, ils sont aveugles ñii nga xam ne ne blessé léger donc euh, bokkul ça dépend dafa dañuy jël taux d' invalidité bi nga xam ne nit ki moom la am ñoo am benn barème bu ñu taxawal. waaw bu ñu taxawal pour ñëpp voilà ñi nga xam ne ne euh, en fonction des euh, pourcentages mooy maanaam pourcentage taux d'invalidité mu jëm si cent pour cent ba dix pour cent ku ci nekk am na loo xam ne moom la ñu attribué li ñu attribué nag weesul deux millions ba cinq millions. Euh, léegi euh, militaire invalide yi la ñu wax militaire yëpp invalides yi naka lay demee exactement parce que 2238 ngeen wax ñan la concerné euh, exactement. ñi mu concerné mooy ñu xam ne rek nekkoon nañu armée ba jeexal doon ay retraité mu am pension d'invalidité waaw ñoom la concerné. d'accord euh, retraité maanaam. militaire invalide maanaam ñu jeexal maanaam ñu jeexal retraité lañu waaw doon def seen service actif ba yàlla def ñu jeexal. bañ dem ñibbiwaat seen kër loolu ñooñu la concerné voilà te ñu am pension révolté waa léegi indemnisation bi lan moo ko expliquer si ban cadre lay duggu ba mu nekk euh, une indemnisation spéciale si lan la président tànk jox leen ko waaw waaw moom moo xalaat lii lii da ko war a def ndax xool na ne situation bi nga xam ne ni invalide yaa koy dund boobu ak léegi ñu dégg nañ leen ci média yi dégg nañ leen dans les rues de Dakar ak jafe-jafe yi ñuy am mu xool ne lii il faut mu xalaat ji ci la jël dossier defar dossier jox instruction ministère de forces armées pour ñu taxawal lii xool nan lañu mën a defee indemnisation selon le le le le le de l'individu. donc si loolu la ko tëng pour aider les militaires invalides euh, si côté social bi précarité bi voilà ak yëngu-yëngal yi ngeen doon def kon di ngeen ko wàññi fan ma ne kon fan yi di ngeen wàññi yëngu-yëngal bi. ngeen doon waaw dinañu wàññi de ba wàññi mais noonu ñaan yàlla ndax boobu ba tey nii nit ñaa ngi commencé bay percevoir nee nañu woon entre lundi jeudi ñu bëri dinañ percevoir ñu ngi ci mais ba léegi am na ñoo xam ne jotaguñu dem nañu seen banque jotaguñu fu ñu war a fayee ko jotaguñu ñu ngi xaar. Mhm. waaw yàlla mën na ci def jàmm ba ñëpp jot. loolu la ñuy loolu la ñuy yéene ñëpp. mu nekk nii ñu ngi ciy liggéey nag kilifa yaa ngi ciy liggéey bu baax moom ministère yi ñu ngi ciy liggéey direction des pensions direction euh, bureau militaire ñoom ñëpp ñu ngi ciy liggéey Euh, su weesoo indemnisation sociale bi am ngeen leneen loo xam ne bëgg ngeen président defal leen ko yéen militaire invalides yi waa mooy mesure mesure am na mesure yoo xam ne ne waxtaane woon nañ ko ci commission ad hoc bi mu jàpp mu jëm ci maanaam benn montant boo xam ne ne mhm. dañ koy programme pour accompagner la pension dévolutée waaw mu ngi woon si si si si commission ad bi période yi ñuy tënk conclusion yi mu ngi ci léegi nag loolu ça dépend ça dépend kilifa yaa ngi ciy waxtaan. mais lan la exactement jàppaguñu dara waaw jàppaguñu ci dara. ma ne ma ne lan la exactement. yan la pour accompagner pour relever le niveau de vie des des invalides waaw loolu rek a tax ñu jublu ci ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy def ay réflexion xalaat ñu ngi ko ciy def kilifa yaa ngi ciy waxtaan. pour xool nan la ñu jëlee ay mesures d' accompagnement accompagner la pension des retraités. Mhm. ngeen appel peut-être bu ngeen di lancer ci président li mu def mais aussi ci seen situation gën a améliorer lan la. waaw président bu rafetlu yàlla ñu ngi koy gërëm di ko sant euh, le ministre Sidiki Kaba bi démarré woon travaux yi tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm la di sant bu baax le ministre euh, Omar Youm. ndax ba mu toogee daf ñoo woo ñu toog waxtaan échange boobu am nag communication boobu am entre moom ak les acteurs concernés tax na bu yëf yi gën a ratax gën a gën a gaaw donc tey jii bu ñu jotee yëf ci délai bi dañuy sant yàlla bu baax ñoom joué nañ ci rôle bu mag ñu ngi gërëm président de la république gërëm euh, le ministre Sidiki Kaba gërëm Omar Youm euh, le ministre des forces armées actuel ak notamment le le ministre le le le le colonel Arfan Sahar mu mu doon diriger commission arabe bi ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax def na ci képp laay kàttan bu lu nekk daj na ko ci lu nekk daje daje nañ guddeeg bëccëg ñu ngi daje dafa wax ministère des forces armées waxtaan nañ fa ay waxtaan yoo xam ne ne lépp. Euh, pour lii rek pour que tey jii gars yi ah, au moins sax ñu mën a am tuuti loo xam ne dinañ ci jàpp pour mën a sagal seen seen njaboot mën a defaraat seen vie sociale. Mhm. Euh, Yéli ñu laaj la aussi si li nga xamante ni mooy euh, armée sénégalaise image bi nga xam ni am na ko sur la scène internationale lan nga ñu ci mën a wax mu bokk ci armée yi nga xam ni vraiment jox nañ leen cër. waa ma madame loolu lépp lu ko waral c'est la formation. Mhm. yàlla dimbali nañu armée sénégalaise. wàllu formation jàmbaar lañ ci ndax am na aussi les cadres ñu ngi fii di former les jeunes la gis nañu formation yooyu tey jii moo jur tey jii mission yi ñuy def bitim réew ak fii bi réew mi yàlla dañ ci may ndam ndax boo métier boo ko amee ah, jàng jànge ko fu ñu ko war a jàngee ak ah, mu ànd ak équipement yoo xam ne moom la war a àndal ndax tey jii président ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci ay mi def armée ndax lii tey jii ah gis nañ ne armée yi am nay amélioration ñu ngi sant yàlla bu baax ndax tey jii boo demee sur le terrain sa xel dina gën a daal ndax équipement yi bees yi nga xam ne moo ñëw ànd ak ànd ak li fi nekkoon donc dañuy sant yàlla di sant bu baax le président Macky Sall ndax moom tamit nit la koo xam musul tànkam lu les invalides ak grand moutre de guerre. Hmm. peut-être euh, ñàkk déggoo moo amoon rek mais tey jii déggoo am na mu ngi mu ngi suivre bu baax mu ngi suivre bu baax suñu situation moom président Macky Sall mu suivre suñu situation mu ngi ciy waxtaan ñu ngi ci war a waxtaan yëpp liñ ci war a def yëpp ñu ngi ko ci def ñu leen gërëm di na sant di ak tous les membres du gouvernement ak tous les acteurs yi nga xam ne contribué nañu ci lii am tey jii. Hmm. si décembre bi weesu euh, si lañ doon euh, euh, fàttaliku événement douloureux bi amoon di Thiaroye 44 ñu massacré woon ay tirailleurs sénégalais nga nekk ko xam ni militaire nga woon am nga appel bo lancé France par rapport ak Thiaroye 44. waaw madame merci waaw loolu laay def rek mais appel laay def rek à la France ñu xool ni Thiaroye 44 dossier yaa ngi fi trace fi. ñu xool les héritiers légaux ñi nga xam ne ne les héritiers ñi nga xam ne ñu ngi fii tey jii doon ñoo xam ne ne seen descendant la ñuy ascendant yi descendant yi lépp loo xam ne war nañ ko mun a programmer pour attribuer leen benn indemnisation waaw jox ko seen famille au moins sax mu doon ndàmpaay boo xam ne seen famille dinañ ci mun a jis seen bopp loolu la ñuy séntu ci ñoom. Hmm. waaw ñàkkum civisme bi dafa doywaat waar fii ci Sénégal ak indiscipline beeg ñoom seen yi am ñenn ñi sax nee nañ euh, dañu war a am li ñuy wax service militaire pour tous pour gën a mën a yaraat sénégalais yi euh, ci wàllum éducation looloo si wax euh, est-ce que d'accord nga ci Yéli Ndiaye. waaw c'est très normal loolu moom d'accord naa ci ànd na ci service civique service militaire pour tout le monde pour tous les jeunes dafa baax. ndax xale yi aussi il ñu tàggat leen ñenn ña xamuñu il faut ñu xamal leen ñu jaar armée ñu tàggat leen delloo si seen xel ñu xam acte de civisme mooy lan ñu xam lu bëri loo xam ne war nañ leen ko jàngal dina leen jëriñ ci wàllu éducation nit ki am yar ndax ñu tin ba ñu nekkee armée yar lañ daan jiital looy def te jiitaloo yar pour nga réussir sa mission dafay xaw a jafe nit ki daal dañuy ñaan yàlla sunu doom yi sunu sët yi tey ji yàlla def ñuy dugg armée ñu def former leen ñu jóge fa mu amal leen njëriñ mais lépp lu ñuy def rek jiital yar yàlla ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm xale yi yàlla defal leen jàmm voilà kon Yelly Ndiaye en tout cas Rewmi FM mi ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité ci tont bi nga tontu suñuy laaj. waa ñu leen nuyu bu baax di gërëm bu baax chef d'état-major général des armées le chef d'état-major général des armées le général de corps de l'armée Mbaye Cissé à chaque fois de daan ñu woo régulièrement ñuy tenir ay rencontres au niveau de l'état-major waxtaan xalaat mu taxawul ay projet pour l'amélioration de la condition de vie des invalides ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a muy jël di daje. sunu frère d'armes yi di waxtaan di trouver solution pour ñu jéem a xool ñu mën a def pour jàppale invalide bi ñu koy gërëm di ko sant moom le général de corps d'armée Mbaye Cissé di ko gërëm bu baax. may fàttali ni euh, Yéli Ndiaye membre nga ci regroupement des euh, anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal merci Yéli Ndiaye. merci